tey ñoo ngi mbuur yaakaar naa ku ñëw mbuur moom fekk fi koo xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon moo mënoo dem te waxu ak moom Yékini def fi tey ngeen bëre ay yoon yu bari tey mu woote nga sol sa dàll ñëw loolu laa lay laaj ci biir mbuur fi nga dëkk Bombardier waaw dama koy rafetlu rek Babacar di sant yàlla bu baax julli si yonent bi gërëm suñu waajur comme ni ñu koy waxee euh, tey jii dafa def lu solo mooy dafa tëgg mbapat mu mag def ko mbuur ne ma dama nga ñëw teewal ma ah, man su ma owul woon sax devoir la man ma ñëw parce que man damay représenté lu bari si dëkk bi comme ni ko waxee rek man sama lépp nguur la nu ma mel tey lu ma am ñoom ñoo ma dooleel kon képp kuy jàppale mbuur rek pour man nga jàppale kon yaxee ñu ko koy encouragé bàyyiwul làmb rek tourné na làmb maanaam dundee na làmb waaye dundal na làmb it ndax xam na ni lu ma am làmb moo ko may kon tey su ñëwee tey tëggaat làmb vraiment dañ koy rafetlu ndax dañuy wax ni euh, nit toujours nga koy may jën da nga koy jàng na la ñuy nappee tey euh, mu ngi jàppale xale teg somme ma 3 millions tegal ko mbër yi pour ñuy compétir vraiment ñu ngi koy encouragé baax a baax. tey tamit euh, maanaam yéen ñaar dama ko laaj sàng ne ko koo xam ne soo wujju la woon ci làmb mu ne ne ko woon wujjam mais rakkam nga woon. waaw sama mag la si làmb amul tax dama ko dama ko nawoon si lu bari. dama ko newoon si lu bëri mooy amoon na hygiène de vie bu baax carrière am macha allah gudd na daaw ko dégg si wax yu bëri malgré maa ko fekk si làmb waaye exemple la comme man tey nay xale di wax ne exemple laa si ñoom moom exemple woon si ñun kon tey bu yàlla defee mu génn bientôt man aussi damay génn kon rafetal rek moo war ba ñuy jàppale xale te waxtaan bu baax. bu ñu liggéeyee ensemble am na lu ba lu ñu maa defal Petite Côte incha allah rabbi waaw. yaa ak moom maa ak moom waaw. bàyyeegoo lamb waaye coow li bëri na far yi ci yow ñi ne sa diggante ak Eumeu Sène ñi ne rëg-rëg am na ñoo xam ne sax dañ ne sa diggante ak rëg-rëg combine lay doon bu amee am ñoo xam ne dañ ne sa diggante ak Eumeu Sène neexul loolu dégg nga wax yooyu ak lool boo ko déggee ban xalaat nga ci am. non man mbër laa du ma dëgg sama bopp. promoteur moo def choix proposer l'adversaire man que sa soit ku man ci doon. promoteur ma def soit adversaire ni kii laa bëgg nga bëreel ngeen wax ba d' accord mu jox la nga ne sa liggéey moom mu ne sa liggéeyam euh, pour l' instant wax naa ak promoteur jox naa ko sama kàddu jox na ma kàddoom du ma tudd turu kenn nag waaye xam naa ni koo xam ni du sàmm kàddoom la moom it falaas yem wax nañu ba sori euh, détails yi ndaw rek moo si dañu finaliser incha allah. ban adversaire la. du ma tudd turu kenn. Reug Reug du ma tudd turu kenn ndax daf ma ñaan. ma jox ko sama kàddu te bëgguma tooñ waaw. rëg-rëg Balla Gaye Gris Bordeaux Eumeu Sène bu la wala guy gi. non man fu ma dool si làmb amatuma ay tànn si mat parce que ay revanche moo ma dese ay revanche kese moo ma dese jëli wala jox ñu jox ma wala ma joxe donc làmb loolu moo ma dese ah tudd ma tur benn mbër nag du ma tudd kenn du ma dëkk kenn nit. revanche la wala combat jànq la. dama ne ay revanche moo ma dese jëli wala joxe. buñ la proposé revanche la wala combat jànq. man daal euh, li ma la mën a wax mooy revanche moo ma dese joxe ak jël waaw. combat jànq nag. waaw waaw pourquoi pas parce que promoteur bi moo def soir rek. waaw MMA bi foo ci yaa ngi war a dem Angleterre mois de février. waaw combat bam solo ceinture mondiale laay def Angleterre contre Daniel Portman rendez-vous le 29 février incha allah Angleterre maa ko fekk dëkkam kon maa ngi ñaan. état Sénégal dugal seen loxo premièrement sama ministre bopp Matar Ba nga xam ni dafa def si jeune jeunesse bi lu solo li ma lay waxoon rek jeune la comme ñun dafa am charisme c'est pas pour seetlu koy fleur mais ministre bi disponible la donc bëgg nañ aussi mu recevoir ñu bu baax gën a dugal loxoom si MMA bi le 29 février incha allah tamit tey am na loo xam ne dafa bokk si làmb ku mel ne Aziz Ndiaye xam nga ko. ñu xëy tey tàggañu soxnaam boobu ñu mu ngi ñu fekk fii Mbour loolu yëg nga ko ak looy wax Aziz ak waa ahlu lamb rawatina waa senegal yëpp. waaw dañ koy jaale parce que lamb famille la lu laal kenn day laal ñeneen ñi man yàggul dara sama mag génn àdduna mu déplacé wu ànd ak ñëw jaale ma incha allah rabbi ñu ngi koy jaale bu baax a baax soxnaam soosu man dinaa leen jaale ji ko bu soobee yàlla di ko ñaanal aussi yàlla may ko xolu muñ te xaare soxna si àjjana fi daw si. incha allah rabbi. reminance dégg naa takk nga soxna deuxième femme. bu dugg foofu loolu sama biir la baal loolu. ma bàyyi loolu. à <laughs> suivre la. loolu à suivre la. à suivre. da ngaa kon naa bàyyi. à suivre la. ma bàyyi. baal noonu rek ba si